jërë ngeen jëf mbokk internet ñu topp ci plateforme yu différent ñu ngi leen di ziar bu baax a baax euh, comme ni ñu koy waxee rek tey euh, naqar la ñu daal di am euh, ginnaaw bi ñu tàggee suñu mbokk muy Aziz Dabala yàlla na ko yàlla suñu borom yërëm te xaaree ko aljana ginnaaw ñàkk na bakkanam ci anam bu doy waar ñu toog ak Pagaye Mbaye dañu koy nuyu bu baax di ko ziar ginnaaw bi ñu la jaalee li ñu bokk Pagaye nuyu na waaw maa lay fay di nuyu journaliste yëpp maa ngi leen nuyu euh, di nuyu famille Aziz aussi maa ngi leen di masaw li nga xam ne moom moo am di leen di jaale Aziz àdduna ndax li moom àdduna yëpp ko yëgandoo donc boo xoolee par rapport ak ci côté réseaux sociaux bi da ngay xam ne lii àdduna yëpp ñoo ko yëgandoo donc euh, di wax ne daal li moom

te ma xool même pas yàggul maa ngi moom ñu ànd Fatick dimanche bee passé ànd Fatick jógee Fatick ñëw joué si ci guddi xam nga man suma suma suma suma waay la suma xarit la te vraiment fi mu fi mu dëkkoon ci euh, technopole bi soriwul sama kër dama daan dem des fois xam nga ñu taxaw waxtaan ba mu présenté ma fa benn waay bu tudd Babacar d'ailleurs sax kooku démb moom moo woote bi ñuy dajji foofu bi ñuy këram bay mën a xam li xew ndax moom la Nabou lay ñëw wax na ko ñu ngi koy woo jotuñu ko deux jours man nit ñi ngi woo rek naa ma ñu ngi koy woo jotuñu ko donc si la Babacar ne ak Nabou lay nañ jéem a xool ñu dajji xool ndax comme ñu ngi koy woo jotuñu ko ñu bëri tamit yaakaaroon ne dafa dem Touba Nabou lay ne demul Touba ndax man ak moom ñoo waroon ànd dem Touba Babacar nee na mu woo menuisier bi menuisier bi ñëw ñu daj bunt bi. ko dafa ba arrière dafa arrière c'est parce que ni mu gis appartement bi ni mel xam nga arrière mais gisul Aziz mais boy ci ci ci bi ak après ñu xol porte yi si la génn moom ñoom Nabou Leye ñu génn si la ñu woo police moment boobu nag man mi ngi ma fekk ma jugee Pikine di ñibbi sama kër mbaaw si la ma woo téléphone na ma booy naka mu ma ne ko saa mu ne ma Aziz gëñ nga ko dégg ma ne ko Aziz waa fan yii déggante wuñu mu ne ma ah ma ne ko waaw ah, mu ne ma waa ñun de jours dañ ko topp di ko woo jotuñu ko ba finalement Nabou Leye daf fi ñëw ñu dajji appartement am mais booyam bi mu nekkal fii dañ ko rendi quoi mais Babacar yow lan ngay expliquer ni ma si mana ne ko booy bi dañ ko rendi ma mana ko analyse mom joto leen ko mu ne ma léegi nii woo woote waat nañ mais téléphone am jàllul mais police ñëw na fi mi ngi def liggéey donc ñi ngi ci suuf gisaguñu Aziz nag mais xamuñu affaire yi lan moo xew mais booy bi moom gis naa ko man ba maa ci suuf sama place ndax mom fi fi restaurant am nekk ak kër gi daanaka ñoo ma ne ko ah boo mu ne ma waaw ma ko léegi kon baal ma xaar tuuti ba xam ban information la ñuy am ma toog lu jublu une heure de temps une heure de temps yu teg tuuti dégguma ko ma woo ko ma woo ko ne ko allo Babacar mu ne ma waaw booy naka mu saye ma ne ko saye la mooy saye mu ne ma Aziz tamit si la bokk dañ ko rendi ma ne ko mais Babacar yow la ngay expliquer nii mu ne ma dañ ko rendi fekk man bi mu ma woowee téléphone wax ma ne ma gisaguñu Aziz ku dee ak sa bàmmeel mais sama sixième sens fi mu dem baaxul quoi hmm. ma xalaat ndax woonaa sama ménagère expliqué ko ne ko mais sama sixième sens fi mu nekk baaxul hmm. mu ne ma bul xalaat yi ngay xalaat nii mooy loolu donc bi ma ko Babacar waxee affaire bi choqué ma Babacar nag ne ma man dimanche laa ko mujjee gis dimanche la ñëw fii non bi muy ñëw daf ma woo ne ma maa ngi nii ci taxi di ñëw mais maa ngi ñëw nga fayal ma sama taxi dimanche boobu la ñëw fii ma fayal ko taxi ay vingt heures appel baa ngi nii ay heures mhm. si laa ko fayal taxi bi après defaral ko reeram mu yéeg bu mu yéegee nag si la ko Babacar gëj gisaat gëj ko dégg xam naa nag affaire bi moom bu dee am day nekk diggante euh, dimanche bi ci guddi jàpp fajaru lënd bi c'est parce que comme moom ay vingt et heures affaire yooyu la yéeg mhm. waaw que moom Aziz Babacar mi ngi may naan niñ ko fekkee xam nga affaire bi nekkul woon bees bees quoi ndax moom ci saal bi lañ ko fekk te dañ ko mujj dañ ko muur foofu noonu. Mm-hmm. non man lii daf ma bett xam lu tax mu bett ma mooy Aziz bi ma xam mm-hmm. déjà Aziz doxal ci dara luy luy luy luy problème Aziz foo ko fekk day day day wax nit ñi di reetaan bañ na ko ba man bi ñuy tourné clip bi léegi léegi bi ma booy di woo image yooyu muy ñëwaat ci ñoom dem nañ ci ba bu ñuy tourné pak danaan ko damaa bëgg nga def lii Aziz def ci leneen ba ma koy tooñ naan ko semplo nit ñi ñuy reetaan muy muy animé foofu

fofu lay mujj sax di fanan waaw mais xamuma kenn ku mu jotel waaw tay euh, ñu wax ni Aziz Dabala en tant que artiste tay mu def lu nekk ci culture vraiment ñu bari ne peut-être waru won ñak sécurité ba lu melni diko di dal mu nekk phénomène parce que c'est pas la première fois mu fi am quand même nga dégg ñu ne ñi ne dañ ko rendi ñi ne dañ ko jam quand même yow en tant que artiste yan kàddu nga yëkëti ci lool waaw loolu nag li ma ci mën a wax mooy dëkk bi moom toll na foo xam ne ñu ñëpp ay doomu aadama lañ waaw ay nit lañ quoi c'est vrai que ne nag artiste moom yàlla def na ci moom muy siw day am tur donc ràññee ko day yomb xam nga mais jamono ji toll na foo xam ne day na waar day waar boo xam ne lii nga dégg ci Aziz du ci moom rek nga ko déggee chaque jour nga dégg ko mm-hmm. te nekk naa ay fee yoo xam ne man damaa dem sax ba dama ne man donc man nit ñi li leen di defloo lii lan la c'est parce que ku ànd ak sa conscience tranquille waroo mën a tiim doomu aadama di ko def yenn kon nit ñi man dama dem ba mënatuma comprendre boo ba pare man fi mu dëkk koñ bi mu bi mu bi mu bi fi affaire bi amee koñ boobu am na sécurité boo déggee ma ne la am na sécurité Aziz këram ak euh, ay 20 mètres am na benn gardien buy ne foofu te koñ boobu am na ay làmp am na ay caméra xam nga beneen bi ci des mooy tout le temps dafay am ay nit c'est parce que am na ñoo xam ne sax fa la ñuy gaare seen moto yi ñuy war a xëyee liggéey ak yooyu xam nga léegi man loolu moo ma jaaxal lan moo tax fee bi am donc ak koñ bi ni mu bindoo ndax koñ bi rëyul xam nga koñ bi dafa am écho ay étage ñoo ko tiim mu am tëli karo donc lan moo tax lu mel am ba jeex ken ken kenn yéegu ko voilà xam nga man affaire bu ma jaaxal mi ngi noonu. Hmm, li la jaaxal boobu bëri nañu mu jaaxal quand même parce que bi mu amee ak léegi euh, ñenn ñi dañu naan euh, ki def bu ko jegewul itam ku ko xam la parce que loolu moo nekk polémique bi instant waaw lii moom bu ñu waxantee rek ki koy def waxuma la sax xam bi. mais da koy day day nekk loo xam ne da koy travailler c'est parce que day xam heure bi mu fa nekk maa ngi koy wax léegi maa ngi naan ndeysaan boo demee booy bi biñ fa fekk sax moom dañ ko fa fekk rek ba lii dalaale ko mais amaana sax mën naa am di woon moom xam nga mais xam a dëkk bi moom léegi doo xam quoi doo xam doo xam exact lan moo lan moo man daal man mënuma mënuma xaw ma lii lan la quoi nan laa ko mën a waxee mais yéeme na daal ndax koñ bi mu amee ak ni mu demee li ma li ma jot a dégg si nit ñi mooy après ndax bu fekkee yoon dañuy def seen liggéey donc waa kër gi ñu ngi wax ne dafay moment ñu ngi dégg benn bruit ci kër gi xam nga mais nit jàpp naa ne am na loo xam ne boo koy def kër gi jàkkaarloo tamit am na benn waaye bu fa dëkk bu ne benn yuuxu rek la dégg mais xam nga yooyu tamit doo jàpp ne dara la wala di genre xam nga. mais doy na waar daal lii moom doy na waar te man jàpp ma ne benn nit moo ko def wala ñaar. waaw ñu nekk ndax léegi reyoon yi ñun génn na hmm. gën a yokk sécurité bi rek nañ ko yokk rek ndax aduna bi moom doo sax xam billaay walaay da ngay dem nii rek dañuy wax sécurité bi man de dem moy lima ma wax sama kër rek réew mi toll na fo xamné nit ki jëlal sa lepp jox ko yàlla rek ndax nit ñe ngi daw di wut sécurité seen biir kër yi yaakar na loolu mo leen ni ar mais ki ñu fekk ba sa biir kër ray la koku ah moy limay wax rek saay ma julé loolu la ñaan sutura yàlla suñu borom yàlla rek mo la mëna a suturaal aduna bi fofu rek la tollu da ngay daw di moytu <laughs> mais am na fu ñu lay fekk moytu mënut a weesu loolu donc daal di ñaan yàlla lii metti na mais yàlla na fi gëj yàlla na nekk mbir moo xam ne moom yàlla na yem fii quoi et puis famille Aziz yàlla may leen xolum muñ c'est parce que lii dafa metti dafa metti trop lii waaw dafa metti quoi te Aziz xam naa ko guerrier la boo xam ne donc moom dafa doon da doon fight quoi waaw da doon da doon fight life am maanaam um, liggéeyam da doon fight pour nekk dara ndax boo seetloo jamono yi ci ginnaaw ñu génn yëpp clip yi nga fi gis mu def it yëpp Aziz a ko def ba bi ñuy ànd man ak moom dem Fatick mi ngi am ku muy expliqué naa ko dafa bëgg a def benn benn documentaire kon nga war a xam ne moom mi ngi doon ci mi ngi nekkoon ci tànk yoo xam ne feneen ak feneen ak feneen tey ndogal bii ñëw dal Magaye pour ñu bàyyi la euh, wax dëgg neex yàlla wax nga ko récemment yéen a ngi nekkoon ci tournage clip euh, ngeen am complicité ci moment yu mujj yooyu lan nga dund ak ak Aziz Dabala. boo déggoo ma ne la bu ñuy tourné Aziz moo ñu gën a bëgg liñ doon def kee toog mooy Pac moo tourné clip bi Pac DJ moo ko tourné mais gaanam la. donc dañ doon communiquer man y avait un moment moom moo doon régler sax ak ay Pac yenn affaires yi sonn ci déguisement yi ba jour bi may yóbbu déguisement yi maa moom ñoo taxaw ci ci ci ci buntu këram di waxtaan mais tournage yi tournage nekk na loo xam lu metti la nga war a jóge lieu bii dem lieu bee dem lieu bi avant ngeen a lekk wala ngeen di naan day metti mais Aziz toujours mi ngi joxe du onk te ñi muy àndal daf leen teg ci ay conditions yoo xam ne daf leen xamal ne liggéey bi lii la comprendre nga li may li may li may li may li may li may fàttaliku ci clip bi moom lañ ma doon wax léegi nii mooy bi ñu am na benn partie boo xam ne Pape mi ngi may expliquer naa ma boo bu ngeen bu ngeen demee ba ci benn moment am na partie boo xam ne da nga waroon nuyonteeg Aziz affaire boobu day ñëwaat sama bopp rek waaw bi ma koy nuyu noonu ba pare moom Aziz da doon wax ci clip bi ndax man Aziz tout le temps danaan lii bis bu génnee. di wax ci affaire bi di wax bëgg affaire bi man ku ko waxoon ne ko lii dinañ ko tourner après doo gisaat image yi mooy loolu